daal di juddu gannaaw bu kii di Ousmane Sonko daal di dalalee ganam bi fële ca université Cheikh Anta Diop de Dakar bokk na si luñ fa jot a waxtaanee du lépp lu jëm ci borom ñaari tur yi loole nag daldi jur coow bu mag a mag ndax ñu bëri jàpp nañ ne kii di Ousmane Sonko dafa mel ni rek kuy dooleel li ni mel loole nag daal di jur njàkkare ba tax na am ñu si jóg doon ci àddu Sénégal. doon réew boo xamante ni daanaka musulman yi ñoo fi daal di ëpp ñu bëri jàpp ni mënuñ nangu borom ñaari tur yi di fi am doole Ousmane Sonko gannaaw bu mu jëlee kàddu gi li mu xamle mooy mooy Sénégal bu dee sax am na borom ñaari tur yi wante rek nekkul li nga xamante ne ni société bi daf koy daal di accepté mu mel ni ñàkk déggoo dafa am ci yooyu le kàddu tax na ba ñu bëri di laajte ndax Sénégal ani lan la loi bi wax ci li ni mel buñ sukkandiku ci code pénal bi ci article 319 alinéa 3 moom nag li mu xam xamle mooy Sénégal li muy tere mooy li nga xamante ni moom lañ daal di tuddee acte contre nature loole nag. loi 66 16 bi voté woon ci 12 février 1966 boobu boobule ñu ngi ko amaloon gannaaw bu Sénégal jotee indépendance am ak léegi loole nag du wone rek ni amul benn loi buy interdire homosexualité fii ci Sénégal fàttali rek ne ci atum 2022 ay député daldi woon nañ dugal fële ci assemblée nationale benn projet de loi ngir rek ñu daal di criminaliser homosexualité wante rek loole dañ ko daal di rejeter. loole nag di wone rek ni ba tey ñàkk déggoo dafa daal di am ci li ni mel li leer ba leer daal mooy jamono ji Sénégal askan wi mu mel ni rek pare guñ ngir rek daal di nangu borom ñaari tur yi daal di fee am doole.